jangan la ko dégg ñu tahu ne jàng bisa, fa dem udara, dem taxawaalu waaw ah, waaw sama teewaay day comme bépp Sénégalais rek pour ñëw wan booy bu réew bi nekk si koñ bi ne ko moom nekkul le monopole de la violence donc wax ko ne ko ñun donc Sénégal ñun ñoo ko moom comme bi nekkee opposition la ñu kenn yebul woon wax malaat bi ñu nekkee parti au pouvoir nag war a yéen a ngi direct à Sicap Baobab avec les Sonko incha allahu rabbi dina ñëw 15 heures bu soob yàlla maa ngi def Sénégal yëpp. mooy par force Sonko bi mooy daw biir baabaam man loolu nag laa bëgg a xam secret boobu foo ko jëlee. Ousmane Sonko bi ba bakkan la ci teg. golo wala xaj bu cëpp cëpp ne Sonko dox ma wala fa demee nag. aja fes yaa wër yaa. bàyyi naa mooy kenn gënu fi xamadi kenn. Ah. Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. léegi nag nii nii. partagé leen laaj. ñëpp ñëw. voilà. gars yi yox la yox la gars yi doole direct en Sicap Baobab Yun direct direkta na siga baobab.

dawal dawal dawal dawal waaw kay waaw mais de baaxul de non non bàyyi ko numéro dañuy wax ni mooy parce que affaire la dama dama histoire de temps yi on est une jeunesse consciente une jeunesse mature demal demal demal qua Mai Mai, Wah, jomai, jomai. Allez, ça va jomai. Sonko, sonko, sonko, sonko, sonko, sonko, sonko, sonko. ndeysaan xale yëpp ngi woote Sonko Sonko waaw Sonko mooy borom réew mi de non boo yeggee ñu ngi wàcce fii Sonko Sonko Sonko borom réew mi Sonko waaw seen doom yi quoi am nañu intérêt à Sicap Baobab boobu. yàqunu yàqunu même Pape Amndor saagawunu su yoon nekkul ci kenn ñun Ousmane Sonko lañ topp topp son excellence président Diomaye Diakhar Faye si loolu lañ nekk dimbali leen ñu jàpp ñu ñu si loolu nekk waaye nekkul ne koo xam bu ëllëgee da ngay taxaw fii bu tey di nga góor xam nga lan mooy góor ma ànd nga dee ma ànd ak yow ci dee googu waaye góor goo xam ne maanaam ñi ànd ak Ousmane Sonko dama koy présenté ko am na ñoo la ñaa ànd ak ko yàgg naa ko wax mais boo waxee moo Assane lu muy wax nangam kii man kenn moomut ma kenn moomut ma dama war a wax dinaa ko wax sama dëgg kii Ousmane Sonko moomut ko dama moomut ko yàlla moo ko moom yàlla moo ko topp nit ku ne am nga sa conviction par bu la neex waaye na ko def si anam bu légal dañ ko def si respect ñun ànd nañu ma Sonko mosoo dégg Assane fu muy taxawee yàq mosoo gis vidéo fu Assane taxawee wax lu ñaawal xas nit man kay li bañ mooy boo laalee président Sonko ay Terus yow naka la mën a nit mën a cortège Ousmane Sonko ba ñu nekk opposition sax Macky Sall ñu ma ñoon a fekk bu ñu nekk noo mën a comprendre ay patriote nekk seen liggéey ñu leen di soog di leen ministre de l'intérieur la def liggéey mën ñu def seen liggéey man kenn xamu ki laa gis ci politique nit bay ma balee Sonko joxee laa dellu sama liggéey mais lii dafa yomb a <laughs> waaw ah, continué continué. waaw lu ma bëgg a jégalu ba ba yégalu ko mooy ñoom fekk nañu terrain Sansala fekk nañu terrain Sansala indi booy Sansala yi leen duma duma yu métti mosu ñoo yëpp mais booy ñoo war seen màcc tuñ ko te dëggal seen bopp l'intérieur bu seen liggéey ñoom ñu seen liggéey waaw ba ñu lay woon ay booy mandi kan xoolal sees bi ñu bay goon yi ba nekk ñëppay mandi yow nit ku mandi ba gees ba taxaw la la mën a duma da jël seen ko dëggal suñu bopp. waaw Tidjara mais dama génn maa ngi si ginnaaw maa ngi ñëw. Euh, su ma ñëwee naa la woo. coow bañ a am ndax ba pare ba ci ñoom ñu xam ne tamit ñàkk nañu ñoom li leen war mooy li leen bëgg a def pour saboter ñàkk nañu ba pare léegi nag loolu bu ñu leen ko may waaw nañu leen ko rafetee teel a xëy yeesal carte yi hôtel yi nga xam ne mooy passé parce que passé leen tax muy muy defar ak ak jubanti suspension bi mu suñu ko gis lu weer la première fois gën a nit ñi ñoo ko gënal boppam li nga xam ne foofu la ñu nekk kon nag euh, jàmm rek ñu woote nag jàmm rek parce que réew mi koo dóor mën naa ko waaw ñu ngi ñaan dal ñu ñaan jàmm bu bis ba ñu bokk ci jàmm incha allah ñu jël ndam ñu ngi Sénégal mu jëm kanam loolu ayca kaw mënu koo indi parce que réew mi. am xam na léegi léegi nii koo indi loolu dañ koo indi. parce que réew mi tamit kenn duñu tere fenn nit ñi ko leen fi ñoo ko bokk am bu baax soo bu sa yoon am. dërën bi tuur kenn du guloo waaye nag dafa sës ñu nag la mën a demee mais nag yàlla ñu si def jàmm incha allah yàlla boole xol yi ak xol yi waaw da lay rek réew mi changé na da lay wan lépp lu mu digal doomu aadama yi gis nañ ko démb parce que c'est la première mel nii mën a am kon nag da lay wan ne ñëpp dañuy yemale ñëpp dañu ko ki nekk jomaay wala juste ñu jox cër tamit nga koy dugg a yàq parce que parti bu yàggee rek mën na yàq lu bëri kon nag réew mi changé na ñu ñaan jàmm yàlla dafa ñu jàmm dafa bu ñëpp bu gis ba ñu koy parce que borom sax du kay al koo xam ni baat baat bi dara nekk waaw borom baat kon rek Sonko lañu wax Sonko lañu wax yaa ko fi rek Thank you. partage leen live bi ini antara en direct ci Sicap Baobab Jaay tabare ñi ngi jàpp leen laaf bi ngeen partage ni dara asika baaw baab ñu fi taf ngand affaire su Ousmane Sonko ku doon bañ a dégg Sonko yeebi day gis Sonko partage leen laaf bi ngeen ko yéen direct asika baaw baab avec les amis patriotes Thank you. Apa live ngeen par raase ah photo ko seel mu ngi yëg par xaar ban côté su si pere arrivé xoola jox ko sama numéro gars yi ñoo dagg live bi quoi. gars yi tapoté bi doo ko toon. tapoté de live bi ngeen partagé ko. ñu ngi direct si baaw baaw. moytu pare-brise bi Thierre eh, eh, yow kii mu ngi insisté rek xama buñ ko xama ñu ngi jëlaale gars yi ko la sa produit ba dañuy nan ngeen man nañu lépp boole man xamal dañu boole noonu jaay xamal yëpp boole ko ñoom gën a réew Sonko aussi ban jàngat nga ci. en tant que bu nit la dugg ban Sonko amul droit am réaction amul droit réaction rek en tant que président en tant que Ousmane Sonko leader ou président par parti parce que am na droit réaction pour tout le monde Ousmane Sonko am na droit mer waaye man ñaanuma yàlla gis mer ko lan moo war a wax wax waaye ñun bu ñu ñaan yàlla gis nañu Ousmane Sonko man ñaanu ko yàlla man kenn bu ma ñaan yàlla gis nañu Ousmane Sonko wala Ousmane Sonko may gis kanam gis ayoru mer bu wàccee dina xas juróom-ñaari yoon topp di ko bu ma maa ci suuf am na droit réactionné loolu doomu aadama la léegi nit am na droit mer nit day mer nit day jàpp nit day bàyyi mu ban ko du mer nekk ci commune bi suñu demee ak leen laa la moo war wax na ko bari na si nañu wax ba bi man soo ko si kiiti lañ ko lañ ko xamee bi kiiti si la jotee état kiiti si la jotee nguur kiiti si lañ ko dàqee du man soo du bañ ko ko kiiti waaye après wàll moom ni ko bañ biir ngay ngay bañ moom rewaat na moom si biir moom c'est fini c'est fini sa doole maam c'est fini dër man dama mun nga bu ñu loolu bu naa bu ñu demee foofu noonu mairie bi gën ñu attaqué ñu waaw kon dañu am lu ñuy jaay seen rabane gi góor yàlla doo attaqué jigéen góor doo xeex jigéen góor doo fekk sa morom góor mu xat mun góor man bu ma leer na man yàgg da nga maa tooñ fépp am photo Sonko man kay lenn kay lay bañ ma tooñ la loolu moo doon li nga kontaan waaye yow man ma tooñ la loolu moo ma dóor ah loolu du ñu góor bu ñu góor ala ma fekk maa daw samay morom man ñi may ànd ak ñëpp ñoo ma damay wax xamal ñu may daw ñoo xam ne ñoo ma ñu may yokk ñu may yokk àdduna xale du ak xale day ànd ak xale day ànd ak xale mais xale des fois aussi day déglu mag day toog ci mag day paaru mag mu koy xamal bari parti mi daal jaaru ci xale boobu dafa jàkk xamati ko yene xamati ak naan ak man ñun ñoo gën a man ci ñu fekk ñun ñun ñoo man Ousmane Sonko ñun xam nga seen jàkkar dafa ne moom dafa sëy Ousmane Sonko Ousmane Sonko danoo xoolal déggoo ma de wóor na suñu tubaab bëggoon tay tay tay tay ma jox suñu waa kër yëpp bokk gars yi ñu aimé partage aimé leen live bi ngeen partage sinon day tàgg Emene ni ngeen partagé non rek dag 54% lañ leen fal actuellement est ce que nekkul di tombé sur le pied de l'opposition muy bañ a dem élection wala ay affrontement PS ak Ayo, ayo ngeen partagé ay PS ak ay diw la def attention Sonko amatul lenn lu mu pour sénégalais yi direct asika jam boo xam ne maanaam amul coow amul problème ñu bloqué say liste bu ko Sonko musul bokk say liste ñu bàyyi ko mu dem campagne kon ñu nekk ànd benn ensemble ñun il faut ñu daanu Ousmane Sonko ci élection yi loolu lañ loolu lañ taxaw voilà wasalaam ma ne jaajëfal bu baax a baax d'accord kenn koo xamante ni Sonko kese may ngay saaga bu baax ma ne la doon may loolu lañ doon loolu loolu moo moo fi jeex dëgg yàlla fii à partir élection yi jeex mi parti la mi jaas mi keneen ku mënti nekk opposition bi ak ñi nekk si télé yi chronique nekk wal faj tv di fen rek maytul leen ñuy toog si télé bi saaga Ousmane Sonko wala ñuy wax loo xamante ni du dëgg si Ousmane Sonko c'est fini jeex na ngeen partagé Sonko la ñu bëgg la eh, bi ngeen partagé be sonko laa bëgg ngeen bëgg ko bind na bind leen ma sonko sonko sonko bind leen ma sonko sonko bind leen ma sonko sonko tubaab dina leen ñu sonko sonko sonko sonko bi jax sonko la ñu bëgg sonko la ñu bëgg ay ana borom gis yéen a ngi direct sal Gueye mu ngi noonu yéen a ngi direct à Sicap Mbao Mbao gis Africa Baobab Aimez et partagez. Aimez, like et partagez. Yéen a ngi direct moom moom Sika Baobab na génn Sonko kese affaire kese Babacar Ndaw kese Ousmane Sy kese Rokhaya Dramé kese Fatma Thiam kese dara ca Sika Baobab Ami Dramé Sonko sër la ñu topp Sonko kese partage waa Sonko debe taa tiga baobab te loolu nag ñu ne waaw ñëwal foofu ñëwal ñu lekk te Lévi moom moom moom Dakar Abass Fall Lévi moom moom Dakar moom Dakar dama la fi ñaanal pour ñu Dakar ba Barthélémy Dias question ba dafa dem ñu bëgg ko woteel dafa am ku jël Dakar teg ko ci loxoom Ousmane Sonko Ousmane Sonko ba mu joxoon Barthélémy Dias Dakar Ousmane Sonko moom moo ko nar a jëlaat teg ci loxoom Abass Fall Barthélémy Dias bañ na lool lool ma dégg ko mu ne Ousmane Sonko taxul mu nekk benn Dakar waatal bi fenk laa jóg Barthélémy Dias Ndakaaru moo ma dugg Ousmane Sonko ñu ko joxoon Ndakaaru moo koy jël ci kàttanu yàlla ñu xam ne Ousmane Sonko moom mooy borom Ndakaaru nekk borom Sénégal moom la ñu yaakaar donc pour mu defar wala loolu yàgg euh, Ousmane day xeex jot réew mi jot réew mi bu ñu xeexaat loolu est-ce que non non xeexaatul de xeexaatul dañuy riposté dañuy riposté maanaam li ñu condition fay mooy droit à la résistance loolu la ñu nekk di def Thank you. Jadi kita cantik apa apa. Parla sen las. Mama Sonko. Sonko yee fii de gis na këram jam ñaajo xam naa dafa am kër boobu lakk leen ko ñoom nangu ñoo duwa dañoo tey ne seen i garde corps ñu jàpp kay ko mais ñun par la soxla bu fit tey jii na wàcc Baobab na wàcc Dakar boobu ma Baobab sa de boobu ma Baobab sa mais na wàcc Dakar rek bu amee fit na dugg biir Ndakaaru bu amee fit biir bu amee fit dugg biir Ndakaaru dañ koy duma dañ koy duma bu fit na dugg biir Ndakaaru ñun soxla ñu ay nerf ñooñu caaw ñu barke ايوه بابا البنت انا النرجل البنت انا النرجل انت Sénégal nag il va falloir état bi mu nekk état bu fort ndax état état bu faible baaxul si Sénégal ndax Sénégal dafa bëri ay nit yu réew comme Barthélémy Dias ay Bougane Gueye Dany ay nit yoo xam ne tekkiwuñu dara si si dëkk bi jànguñu amuñu xam-xam jànguñu xam-xam jànguñu arabe ministre de l'Intérieur ñu war a def liggéeyam voilà ngeen partage loolu mooy yoon mais li ñuy def nii dégguñu ko nii waaw lii nag président Ousmane Sonko lii bu jeexee na na na ci wax na ci taxaw parce que lii du yoon. waaw kenn ku nekk am na. non mënul continuer mënul continuer. mënut a continuer ak ci Seydina Mouhamed mënul continuer. loolu loolu jëfewul mënul continuer de. kese ñu koy wax moom lii nii na ci taxaw na ci taxaw. élection yi buñ jàll na ci taxaw ba ñi am na ne lii ñuy lii ñuy ñu def réew mi ñu ñëpp a ko am loo xam ne dëgg la. live bi ngeen partage sinon live bi day dagg. kenn ku nekk am nga droit bëgg ku la ñeme leen laaj bi ngeen partage. interpellé nañ ci leen toll ci quatre-vingt-huit personnes li nga xam ne mooy démb di mu Saint-Louis jégalu jégalu am nga jégalu salaay loolu métti na trop loolu métti na trop ndax mi ngi def liggéeyam ak justice na ko daaw dem wala élection yi jeex na ko parce que lii dañoo métti ay Sénégalais bare patriote dafa am loo xam ne ci yoon moom ah Ousmane Sonko ñoo koy ñaanal tey ñaan nag lii su seexee mu taxaw na ci taxaw te nu mu ko jaaroo waaw jërëjëf waaw jërëjëf Jangan jadi, jangan jadi sama pelak. deme nañ laa bi ngeen partagé. ñi yaakaar ne jàng la fa dem mu dem taxawaalu boobu mu ñibbisi ñibbisiwul dara musul liggéey fenn mu ñëw di di bu ne kaay dem kaay dem kaay dem kaay dem kaay waaw waaw sama teewaay day comme bépp sénégalais rek pour ñëw wan booy bu réew bi nekk si koñ bi ne ko moom nekkul la monopole de la violence donc wax ko ne ko ñun donc Sénégal ñun ñoo ko moom comme bi nekkee opposition la ñu kenn yebul woon wax malaat bi ñu nekkee parti au pouvoir nag voilà loolu moo yéen a ngi direct à Sicap Baobab avec les patriotes avec Ousmane Sarr Sonko incha allahu rabbi dina ñëw 15 heures bu soob yàlla maa ngi def Sénégal yëpp. mooy par force Sonko bi mooy daw biir baabaam man loolu nag laa bëgg a xam secret bi foo ko jëlee. Ousmane Sonko bi ma bakkan la ci teg. <laughs> golo wala xaj bu cëpp cëpp ne Sonko bi dox ma lay ren. loolu fa demee nag. aja fis yaa wër yaa. bàyyi naa mooy kenn gënu fi xamadi kenn. Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. léegi nag nii nii. partagé leen laaj. avant 15 heures ñëpp ñëw. voilà. gars yi yox la yox la gars yi

Ini direct asik apa bawa bau

dawal dawal dawal dawal waaw mais waaw mais de baaxul de non non bàyyi ko nu mel dañuy wax ni mooy parti bi dañoo bëri affaire la dama dama histoire de saa yi on est une jeunesse consciente une jeunesse mature demal demal demal waa Diomaye Diomaye xale yi sax dañuy wax Diomaye Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko ndeysaan xale yëpp ngi woote Sonko Sonko waa songo mooy borom réew mi de. non boo yeggee ñu ngi wàcce fii. Sonko Sonko. Sonko borom réew mi Sonko. waaw. seen doom yi quoi. intérêt à Sicap Baobab boobu. yàqunu yàqunu saagawunu su yoon nekku ci kenn ñun Ousmane Sonko lañ topp topp son excellence président Diomaye Diakhar Faye si loolu lañ nekk dimbal leen ñu jàpp ñu ñu liggéey réew mi si loolu lañ nekk waaye nekkul si ne koo xam ne maanaam bu ëllëgee da ngay taxaw fii bu dee di nga góor xam nga lan mooy góor góor maanaam mooy ma ànd ak yow nga dee ma ànd ak yow si googu waaye góor goo xam ne maanaam ñi ànd ak Ousmane Sonko dama koy présenté ko am na ñoo xam ne ñooy yi bëgguñu ko loolu yàgg naa ko wax mais boo waxee ñu ne non Assane li muy wax nangam kii man kenn moomut ma kenn moomut ma la ma war a wax wax sama dëgg kii Ousmane Sonko moomut ko dama moomut ko yàlla moo ko moom yàlla moo ko topp nit ku ne am nga sa conviction par bu la neex waaye na ko def si anam bu légal dañ ko def si respect ñun ànd ak ma Sonko mosoo dégg Assane fu muy taxawee yàq mosoo gis vidéo bu Assane taxawee wax lu ñaawal xas nit man

booy fay topp yor seen laayam dañuy màcc tuuti rek comme duñu ay góor yàlla yow naka la mën a nit ma ñoon a ay patriote nekk seen liggéey ñu leen di soog di attaqué ministre de l'Intérieur la def liggéey mën ñu def seen liggéey man kenn xamu ki laa gis ci politique ci bay ma balee Sonko jawaay laa dellu sama liggéey mais lii dafa yomb gis nga ñun ay góor yàlla léegi gis nga Fatou Diagne bi këram bu ñu fa dama mën a suñu sarat ndeyam eh, saaga yi maa ngi jégalu saaga yi <laughs> ah continué continué. waaw lu ma bëgg a jégalu ba yégalu ko lu ma si bëgg a yégalu ba yégalu ko mooy ñoom fekk nañu teeree Sansala fekk nañu teeree Sansala indi booy Sansala yi te leen duma duma yu métti mosu ñoo yëpp mais booy ñoo war a bàyyi seen màcc tuñ ko te dëggal seen bopp l'intérieur bu deful seen liggéey ñoom ñu def seen liggéey waaw waaw ñu lay woon booy mandi kan xoolal seet bi ñu béy booy ba nekk ñëppay mandi yow nit ku mandi ba gees ba ko sa bopp naka la la a duma da jël si responsabilité nit bu ko waaw tëj naa mais dama génn maa ngi si ginnaaw maa ngi ñëw ma ñëwee coow bañ a am ndax ba pare aussi ñoom ñu xam ne tamit ñàkk nañu ñoom li leen war mooy li leen koy bëgg a def pour saboter ñàkk nañ ba pare léegi nag loolu buñ leen ko may waaw na nga nekk bu rafetee teel a xëy yeesal carte yi hôtel yi nga xam ne mooy passé parce que passé leen tax muy muy defar ak ak jubanti Ousmane Sonko mu suñu ko gis lu mel la première fois gëm nañu nit ñi ñoo gënal boppam li nga nga kon nekk euh, jàmm rek ñu woote na rek parce que réew mi koo dóor mën naa ko waaw ñu ngi ñaan dal ñu ñaan jàmm bu bis ba ñu bokk ci jàmm incha ñu jël ndam ñu jël Sénégal mu jël kanam loolu daal aca yow buñ koo indi parce que réew mi daan am xam na léegi léegi nii koo indi loolu dañ parce que tere fenn nit ñi ñoo ko am Ousmane Sonko bu sooyoon coow bu am euh, deret bi tuur kenn du tulo waaye nag dafa sës ñu ngi la mën a demee mais nag yàlla nañu si def boole xol yi ak xol yi waaw da lay wan ne rek réew mi changé na mu digal doomu aadama yi gis nañu ko démb parce que c'est la première fois lii mën a am kon nag danañ mën a wax ñëpp dañuy yemale ñëpp dañu jox cër li ci nekk jomaay wala juste ñu jox cër def nga koy bëgg a yàq parce que bu yàggee rek mën na yàq lu bëri kon nag réew mi changé na dañu ñaan jàmm yàlla dafa ñu jàmm dafa ko ñëpp bu gis ba ñu koy parce que borom jax du kay al koo xam ne euh, baat baat bi dara nekk waaw borom baat kon rek euh, Sonko dañu wax Sonko dañu wax yaa ngi fi rek partagé leen live bi ñu ngi en ci Sicap Baobab jaay tapote ñu leen laaj bi ngeen partagé ni dara asika baobab ñu fi taf ngand affaire Ousmane Sonko ku doon bañ a Sonko yee day gis Sonko partagé leen laaj bi ngeen tapate ko ngi direct asika tapatan ang labi ngeen par rase ya. ah photo ko si Aliou ngi yeug par xal mune ban côté su si péré Ya arrivé xola jox sama numéro gars yi ñoo dagg live bi quoi. gars yi tapoté tapoté tapoté. dégg nga borom message bi doo ko toon. waaw. tapoté la Thierre eh, eh, yow kii mu ngi insisté rek xama buñ ko xama ñu ngi jëlaale gars yi fële pétrole yi fële ñu yëpp nan ngeen mën nañu lépp boole ma xamal dañu boole noonu yaayam papa ma yëpp boole ko ñoom bu ñu gën a réew aussi ban jàngat nga ci. en tant que bu nit la nii Ousmane Sonko amul droit am réaction amul droit réaction rek en tant que président en tant que Ousmane Sonko leader ou président par parti parce que am na droit réaction comme tout le monde Ousmane Sonko am na droit mer waaye man ñaanu ma yàlla gis mer lan moo war a wax wax na waaye ñun bu ñu ñaan yàlla gis nañu Ousmane Sonko man ñaanu ma ko yàlla man kenn bu ma ñaan yàlla gis nañu Ousmane Sonko wala Ousmane Sonko ma gis kanam gis ayoru mer bu wàccee dara xas juróom-ñaari yoon topp di ko bu ma maa ci suuf am na droit réactionné loolu doomu aadama la léegi nit am na droit mer nit day mer nit day jàpp nit day bàyyi mu fan kooku du mel nekk ci commune bi suñu jëm ak leen laa la moo war wax na ko pare na si nañu wax wax bi ma soog a si kiit lañ ko lañ ko xamee bi kiit si la jotee état kiit si la jotee nguur kiit si lañ ko dàqee du ma soog du bañ ko ko critique waaye après Rewane moom ni ko bañ mi ngi koy kay bañ moom Rewane moom si biir moom c'est fini c'est fini sa tool yi maanaam c'est fini dër man tamit amul nga fi ñu loolu bu nekk bu ñu demee foofu noonu mairie bi gën ñu attaqué ñu waaw kon dañu am lu ñuy jaay seen rabane gi góor yàlla doo attaqué jigéen góor doo xeex jigéen góor doo fekk sa morom góor mu xa man bu ma leer na man yàgg da nga maa tooñ. fépp koy am photo Sonko. man kay lenn kay laay bañ ma tooñ la loolu moo doon nekk. waaye yow man ma tooñ la loolu moo doon ma doon ah loolu yëngu ah, ah. bu ñu góor ala koo xam ne mënu ko doole man du ma fekkee ko ma ko xam xamoo loolu xanaa man musuma daw samay morom man ñi may àndal ñëpp ñoo ma damay wax xamal ñu may daw ñoo xam ne ñoo ma ñu may yokk ñu may yokk àdduna xale du ak xale day ànd ak xale day ànd ak xale mais xale des fois aussi day déglu mag day toog ci mag day paaru mag mu koy xamal bari parti mi daal jaaru ci xale boobu dafa jàkk xamante dafa yàq xamante ak naan ak man ñun ñoo gën a man ci li ñu fekk ñun ñun dañoo man Ousmane Sonko ñun xam nga seen jàkkar dafa ne moom dafa sëy Ousmane Sonko Ousmane Sonko danoo xoolal déggoo ma de wóor na suñu tubaab bëggoon tay tay tay tay ma jox suñu waa kër yëpp. ngeen laafee ngeen partage sinon day dagg. ñeme ngeen partage sinon day dagg. 54 lañ leen fal. actuellement est ce que nekkul leen di tomber sur le piège de l' muy bañ a wala ay affrontement. ay piège ay diw la def attention. donc amatul lenn lu muy coupé Sénégalais yi. direct Asiga waaw waaw. Sénégalais ñoo ñu coupé la sonso. lii campagne jam boo xam ne amul coow amul problème ñu bloqué ay liste. waaw parce que kese bu mel kooku mosul ñu bàyyi mu dem campagne. kon ñun ñoo am droit tey fal ko ñun. ñun ñun ñoo ko yóbbu assemblée ñun. ñun ñoo ko am nañu assemblée ñun. il faut ñu daanu Ousmane Sonko ci élection yi. loolu lañ loolu lañ taxaw voilà wasalaam. ma ne jaajëfal bu baax a baax. d'accord kenn koo xamante ni. Sonko kese may ngay saaga bu baax. amul xalaat amul xalaat. li mu dëgg yàlla fii à partir élection yi jeex mi parti la mi jaas mi keneen fu mu mënti nekk opposition bi ak ñi nekk si télé yi chronique yi nekk wal faj tv di fen rek mayitul leen ñuy toog si télé bi taago Ousmane Sonko wala ñuy wax loo xamante ni si Ousmane Sonko c'est fini jeex na la bi ngeen a Sonko la ñu bëgg gaay bi Sonko laa bëgg ngeen bëgg mu bind na bindal leen ma Sonko Sonko Sonko bindal leen ma Sonko Sonko bindal leen ma Sonko Sonko bindal leen ma Sonko Sonko aimé laa bi ak partagé ñu ne en direct de Sicap Mbao bi sonko sonko sonko sonko bi jax ñu sonko la ñu bëgg ay ana borom Dakar direct en Sicap Mbao Mbao direct en Sicap Mbao Mbao sonko sonko ñun sonko sonko ñu direct a ngi direct en génn génn leen Sonko sal Abass Fall borom Dakar yéen a ngi direct rek seen xarit sa doom ne baanaa ngay mu noonu Sicap Baobab waaw nga leen ma Sonko Sonko si live bi Sonko Sonko Sonko Sonko bañ bañ bëgg Sonko lañu bëgg direct à Sicap Baobab waaw

Mansi Kete, Dr. Darame Kete, Atma Cham Kete. Jadi tak tidak bawa. Kami Darame sungguh betul lagi tu. tiga bau bau. loolu nag incha allah doo ñu ne nañu nañu ko soog combat waaw ñëwal foofu ñëwal partagé leen live bi ngeen aimé balaa ñu koy dagg partagé leen live bi ngeen aimé balaa ñu koy dagg mais ñu koy yëkkati jël xaalis boobu lan nga koy gisee Ousmane Sonko de même à part par Jean Ndiaye bi nga xam ne moom mooy gën a man Ousmane Sonko du moroomam Lévi moom moom moom Dakar Abass Fall Lévi Touré moom moom Dakar waaw Dakar dama la siy leeral tuuti Dakar Barthélémy Dias question ba dafa dem ñu bëgg ko woteel dafa am ku jël Dakar teg ko ci loxo bi Ousmane Sonko Ousmane Sonko ba mu joxoon Barthélémy Dias Dakar Ousmane Sonko moom moo ko nar a jëlaat ci rek Abass Fall Barthélémy Dias bañ na lool noonu ma dégg ko mu ne Ousmane Sonko taxul mu nekk benn Dakar waatal bi fekk laa jóg Barthélémy Dias buur de borom da ngay jël. waaw loolu doy na waay. kañ ngay gagné buur de borom. te candidat yi xam nga bii daal dafa gagné buur de borom. waaw dama ne la candidat yi wala gëm naa ne bu fekkee dina am du la ko perdre ba xam ne Dakar moo ma dëggoo man na yàlla ñu xam ne Ousmane Sonko moom mooy borom Dakar nekk borom Sénégal te moom la ñu yaakaar donc pour mu defar. wala ci loolu yàgg euh, Ousmane day xeex ko ci réew mi léegi nii day jóg réew mi bu ci xeexaat ah, loolu est-ce que non non day baatul de day baatul dañuy riposté dañuy riposté maanaam li ñu condition bay mooy droit à la résistance loolu la ñu nekk di def mooy ñi nga xam ne dañuy escarpé li ñu attaqué ñu attaqué dañuy Jadi kita cantik apa apa. Pernah jadi lagi. Vamos, Songo! Sonko yee fii de gis nga. dañoo duma dañoo tey ne seen i garde corps ñu jàpp seen i garde corps mais ñun ban la soxla bu amee fit tey jii na wàcc Baobab na wàcc Dakar foofu na Baobab de foofu na Baobab sa mais na wàcc Dakar rek fit na biir Dakar bu biir bu amee biir Dakar dañ koy duma dañ koy duma ñun soxla ñu ay nerf ñooñu caaxaan ñu dañoo ñëw dañoo ñëw Baobab ay vingtaine de nervi ay vingtaine de nervi la teg Doudou Sané Sénégal nag il va falloir état bi mu nekk état bu fort ndax état état bu faible baaxul ci Sénégal ndax Sénégal dafa bari ay nit yu rew comme ni Dias ay bu Bougane ngay tan ay nit yoo xam ne tekkiwuñu dara si si dëkk bi jànguñu amuñu xam-xam jànguñu alxuraan jànguñu arab jànguñu diine amuñu dara yaa ngi bokk amuñu ko léegi tey jii ñoom bu ñu ñëwee si réew si ay réew ministre bi lañ bàyyi ministre de l'intérieur ñu war a def liggéeyam Voilà, comme nous y en bi ngeen partage mais li ñuy def nii dégguñu ko dinañ ko defee ñu ko defee waaw lii nag ah, président Ousmane Sonko lii bu jeexee na na na ci wax na ci taxaw parce que lii du yoon. du yoon waaw kenn ku nekk. non mënul continuer mënul continuer. mënut a continuer ak ci Seydina Mohamed mënul continuer. loolu loolu dégguwul ci kese ñu ngi koy wax moom lii nii na ci taxaw na ci taxaw. élection yi buñ jàll na ci taxaw ba ñi nga xam ne lii ñuy lii lii ñu def réew ñu ñëpp ko bokk. waaw dafa am loo xam ne tënk na. live bi ngeen partage sinon live bi day dagg. kenn ku nekk am nga droit bëgg ku la ñeme leen laaj bi ngeen partage. interpellé nañu ci leen toll ci quatre-vingt-huit personnes li nga xam ne mooy incha loolu métti na trop loolu métti na trop ndax mi ngi def liggéeyam ak yow justice na ko daaw def balaa élection yi def na ko parce que lii dañoo métti ay Sénégalais kon nag Ousmane Sonko ñoo ngi koy ñaanal tey ñaan nag lii bu jeexee mu taxaw na ci taxaw te nu mu gën a gaaw waaw jërëjëf waaw jërëjëf Yeah, yeah, yeah. nañ laa bi ngeen partagé. waaw